ma de attaqué naa loo baxal ma ñeeg si digg bi. ok ma benn xaaral fay na mu jeex. ma tax dem. parce que nga wax kat nga nii ngeen mel. maa tay de waaye naa la feeñal. waaw maa ngi lay xaar yéen daal feeñ. man mënoo ci ma ñeente. ok ma benn yàlla dogal. sama xaalis mi sa woto xaaral xaaral ma jëm sa woto. bu ma yoree ñaar bu ma yoree dara parce que bëgguma see li sa mbaral la xaaral a baa dool nga nii ngeen mel mbaran si xamal ni wax ko euh, doo ma si mës a fekk si gaaru xaj boobu ma sa bunt bi sama xaalis mu damay dem li nga jot bi aw ma ko waaw jàppale ma waaye daf koy jëm mooy ñëw ngay dem. ana xaalis bi xaalis bàyyi la. mooy ñëw ngay dem. il faut que ñu dem ville. doole yéen doole fanaan da ngeen génn rek loolu def ville yooyu noppee goo ba tey yaa ngi wax rek maa ngi doon ko xam naa ne bokk ba man ville laa jëm maa ngi kaa kaa ma dimbali la ville lañ jëm kaa ñu ànd am soo waxee dimbali ma du ma dem de waaw baa baax sa oto dama yor sama oto waaw dimbali ma baax sa oto damay neexal rek ma dem boo ma neexal ñu ambiance ñu <laughs> ambiance xaw ma da ngeen maa liggéey xaw nañ dem rek Pawlish Mbaye baadoolu ma ko ñu noonu noonu la dëkkee ak man fu ma fekk si àdduna yàq ma ba ma yàqu waaye man lu ma naqadee Ouzin Keita moo koy fajee Ouzin parfum bi de dama am benn parfum pour yow parce que li ngay loo mën loo mën faj si Pawlish rek yow yaa moo koy fajal. mais quand sama nit la sama rakk la sama xarit la on mën moom sama gaan la ah blague à part mais Pawlish baa yàq de quand même ah ma yàqee dégg naa ko. dama dox ma nekkaat di wut appartement mooy que dama amoon naa appartement mais damaa dem bi ci biir découvrir que dafa am benn arnaque arnaque bi mooy kër gi dafa am problème kii euh, ndox dem courant group bi marché marché wul nekkete validé woon naa ko ba ok ak moom desul lu doon takkoon naa sama bagage yëpp waroon dem tuxu mais nekkete su ma demee bay waaj a installé à découvrir que y a trop de choses qui dans la maison maa ngi nii toogaat naa reparti à zéro nekkaat ay visite mais incha allah xam naa c'est pour très bientôt. yali bangay ma des gànnaay umu samley moo naana ay dana xajaay ay dana xajaay mooy kii premier chambre bi moo nekk li mun lii mun a nekk chambre bi comme lii mun a nekk parce que yow la baax moo am doole ok ñu dem ñu dem ñu saa yàlla ko beneen chambre maa ngi ok ñoo joxe nii li muy toilette bi. bi wala saan téléphone am bi nii allo. ii Khady Gueye waaw fagal si téléphone bi Khady daa maa dem léegi xool benn appartement franchement baax na. xam ne tey wër naa seen kër dama sonn tom nañ jël bii bii moom wala su yoo xam ne ñuy def suba demain matin ñu ànd fa nga xool bu dee okki na nga validé ko parce que franchement man gi man doy na ma ba néegi yaatu na bu baax na macha allah am na espace familial bu baax ah suba ñoom xooli ko waaw d'accord boo boo nangoo rek ñu validé ko incha allah dégg ok maa di ñëw ok bi ma demoon tey neex na ma c'est adéquat ak ma personne genre dama man ndax ku ne xam nañ dama bëgg ay genre je ak ma famille dama bëgg yu néeg yu rëy pour pour gis naa tey daa benn boo xam neex na ma te incha allah je pense valide valide ko bu dem toxu léegi incha allah du yàggatul. naa la. mais bi may dem mbaaw nag embouteillage sax taxoon na ma bëgg retourner mais tellement que sama kii may ma ko woon ndax copine asu fay daf maa woo woo woo woo woo son pour livraison cuuraay ma ko doon def tellement dëkk bi mënoo dem mënoo dikk il faut que li ñu wax si parce que dafa métti. damaa mujj sax seen si yoon ba ki ma doon waroon livré cuuraay bi dem si village ko mujj bàyyeen bàyyeen bu mu jox ko ko tellement yàgg ndax ay yoon bu métti te yàgg yow vraiment war na woon nañ ko wax embouteillage bi am si dëkk bi métti na ça fait près trop de trop de temps métti na daal embouteillage bi si dëkk bi. waaye kooku mu xaar la ba sonn bu mu ci dem. embouteillage bi si ëttu dëkk bi ci boppam mu bëri chantier ak embouteillage. dama doon retourné mais comme xam naa damay ñëw dama ne bàyyi ma doole ak mu ma am jëm damaa galéré si bi ba. te bu ah ma leen da ngay toog ma defal la nga añ ba pare nga soog a dem. sëñ lekk cinq. au moins instant sama nga am yow une longue bugguma lekk bugguma naan. jo bàyyi ma jox la te daw aw ma temps. waa Aliou Koumé. wàccu ba liggéey na. ba. waaw maman. Aliou papa. Boy si ana xale yi. Boy si jaaw alhamdulilah kenn du moom. yaa ci doon na yaa ci jaaw. nam na ne trop. dag maa bàyyi dangaa jël sa doom day noonu seytaane nga ba pare. yaa nga jongo ba. <laughs> ñaaw kooy moom dafa war a dolli war a gan. ba ah fu mu koy dollee. <laughs> ah fi nekkal de bàyyi na sama góor jox sa sama te génn ko ci. foofu laa yem. an sama cuuraay nag léegi. tey eh, mu ñaata la jaay cuuraay. kër nga jël ñaata. jeex na ayee jeex. na. foo ko dugal ko mu jeex. taal ko ba mu jeex. dégg nga da nga jaay jonge bu xaay. dana la neex doo doo amaat tey. yaa gis nga cuuraay yooyu. dama lay mayaat benn yaay sama xarit. Ah. benn benn jéeg bu sew du am incha allah. may ma la da ngay jënd suba nga fekk ma sama kër mënu nga ma jeex yëpp nga taal na benn guddi. kon damay tuuma la. ba fa bu ma may dina ma may. <laughs> ba am ma may jaay. ñun ñaar ngeen aw ma toogaay yoon. ba jàmm cuuraay laa la indi. comme nga waxoon dama la koy di maa ngi léegi la ko dem sama yoon tooguma mbéraay ma waxuma. yow nag suba nga jaay sama kër nga taal sa oto ñëw. bu benn xale ma cuuraay. kenn du sama jabar añu ma lekkuma xol ma nii ak li ma li ma gàddu xam nga ma ak histoire kii. trop xam nga. xalaat ju lekk naa cinq mun ma sax nooyi fi mu ne nii damaa xiifa mun ma taxaw i yaay baax xam naa jikkoom yaay toog fi allez papa ñu si jàmm ñu si jàmm hmm. ana xale yaay ñëpp si jàmm su ma toogee añ dafa naa ma xaaral reer bu wax waxee mu la fanaana def ma loolu dafa ñemee affaire organisé baax na baax na yaay xaam soxna yu asu fay yi donc du coup benn ut bi la ma laaj doon benn wadami ak euh, benn kii waaw c'est bon trois yii de porc si mi ngi ma jox ko ko. def ko ci dara fayal boobu. dafa de baadu guddi gis nga ni muy def. dégg nga kii te man jox ma ci benn. fooy amee dañ jëndoo bëgg dem loo la. tey ku me tax dina léegi sama yaay ji moom yow moom mën na nga jël man maa lay may woon ñu sa doom bi. maman yii c'est pour toi. li ah, bëri a ah, sama yaay dina ma may ci néegam laay dem toog faamu ko yaay bu ko may de. bëgg na sama cuuraay fa la dugg si faamu fa la dugal. day ñëw rek jël ko. ba ay de ba nii da nga tëj valise. suba suba sama kër. mais añ leen ba pare ngeen soo a dem. baal naa lii cinq ma ku si lekk yi la yu neex yi. yii yaay yu ko yu ko raw. saa da xool dootoo ko dig ma woo. ak seen kër gi xam nga fii la àll bi ngeen dëkk dëkkoo leen <laughs> yéen a ma fi indi dem a sëy si. waaw nga toog fii laay toog. <laughs> ngeen di ñëw chaque jour di fay fay. sama àdduna yi même. yaa ngi koy. ay bàyyi drops. ñu ngi dem. jërëjëf. daay ci ñëwaat fan yii. incha yaa kontaan nañu ma merci beaucoup merci. Mm. Mm. ñu ngi ngeen toog ba añ nag. yow yàgg mu na yàgguma nag dama dama xawoon yàgg na. sama journée nii lay chargé et que j'en suis très fière parce que ni sa war am jot bu bare. maa si livraison jaay bi événementiel bi comme ni ma ko waxee woon dama am rendez-vous ak Djibi Diallo ci kanam. dem naa ba mbaaw livré chaque jour nii laa koy passé sama macha allah kontaan naa si parce que jot baaxul si nit te yal na yal yàlla musal si nit ku am jot yal naa ñàkk jot chaque jour sama journée di mel nii tous les jours plus que chargé même alhamdulilah ils sont plein pas su ma gis nii am voyage sonn naa énervé naa dëkk bi xat na soof na sonn naa xaaral sax xam summeeku soo sama robe bi mu fay sama bëri julli tëdd tuuti dem sama rendez-vous bi jaral di ma karkare suba ba tay ah, ma tegee ko rek féex. alhamdulilah ma stressé woon sama ni ma jublu alhamdulilah ma tëdd nii xool sama carnet bi. dañ sama rendez-vous waaw Mansour mais Mansour la mënu nekk deux cartons non c'est pas possible xaaral xaaral. parce que man lépp li ma commandé woon bindi naa ko sama carnet donc euh, maa ngi noté trois cartons comment ça se fait que deux mun ñëw c' est pas possible non non vérifier ko léegi nga wax parce que man j' pas temps à perdre dama sama carton dama am am may yu ma war a fournir ah yaa ngi koy xool ma baag léegi maa ngi lay déglu ok nga baatee. ku ñu lay sax énervé si sa ay bagage yoo xam ne yaa ko jënd moom ko ñu bëgg la si wax loo xam ne xamoo ko mu sonn sax xamante gi yëpp man tëdd mu rendez-vous ak Djiby Diallo 19h ma noppal tuuti man ah nii rek sa ay bagage dañ leen si énervé musuma gis lii man tëdd tuuti ma sonn kenn ma rey tey moom xiif bi ma dal moom mënuma leen ko wax xam naa yéegum appartement yeeg wàcc yeeg xool bi xool baa moom a xiifloo ba sama péché mignon la daw dem jëndi cinq doses nag laa ci jàpp bàyyi te tegu dama naa sax jënd di épargner benn ba àgg sama kër lépp laa lekk toog lépp bàyyi ma benn na xiif je suis tellement ak xiif noonu laisse wuy sama ndey sama bëñ wuy sama wuy wuy mm-hmm. mm-hmm. bafa bafa bafa naam wooy bafa maa ngi dee <laughs> bëñ ba encore te ma mm-hmm. ah, laa jox garab boobu bafa sama yaay xarit gi ma xarit gi dafa génn ay da Mm-hmm. te mën a jox karité bi boog. Mm-hmm. nga mm-hmm. tamit. yóbbu ma si dentiste bi. ooy sama bëñ bi génn sax ay ah, ooy yóbbu ma Aida bi ma waroon a gisee dama waroon dañ njëkk a euro léegi. Eh, li xam lay def. xoolal xaar ma woo ko. de léegi en attendant nga préparé ma dem euh, ma woo njëkk euro après ñu dem ma yóbbu la. Massa dégg nga. Massa Massa ñëw xaar day xaar soldat xaar. bonsoir sëñ bi. ça va. ça va fii mooy ëdde yi. waaw fii la. boo seetlu moo sonn ba ñu moo ko sonal trop. ah bon. Ah ah. Bonjour madame. C'est ah, bon, là. Ah, d'accord. C'est pas mal, madame. Merci. Merci. soxna si. ça va ay bonsoir. yaa ngi pièce d'identité. si si mi ngi ak man. waaw. da koy enregistré rek pour entrée bi la. mën nga ko jox mu enregistré rek. d'accord. toogal soxna si. damay soxla ay information rek pour remplir ci. ay professeur yi ci biir nii da ko gis léegi. d'accord. nu mu tudd. Aïda Diallo. Aïda Diallo. Ah. fan ngeen dëkk. Dakar Yoff Yoff Ernam. Yoff Ernam. jox ma benn numéro téléphone sa bos wala bosam. 77. oui. 118 28 19. waaw d'accord c'est bon. date naissance. 16 mars 86. 86. où? à Saint-Louis. à Saint-Louis. léegi le temps que professeur gis ko maa ngi ñëw pour ñu régulariser consultation bi. d'accord nga ñëw. Bonjour, c'est Mademoiselle Diallo. C'est sa sœur. Oui. Bonjour, Mademoiselle Diallo. Qu'est-ce qui se passe Son bébé a été. D'accord, on va essayer de vous prendre en charge pour vous soulager au moins. D'accord. Voilà, vous permettre de, de pouvoir dormir. Ok. Inch'Allah. Ok. Ok. Puedes venir. Ven a ver conmigo. c'est une dent du haut qui vous fait mal Oui, oui. D'accord. Surtout. Bah, on va regarder ça. Trois jours. L'infection, donc c'est juste euh, une grosse carie qu'on va chercher là à soulager. Simplement, on va enlever le nerf. Voilà, désensibiliser la dent. Vous soulager, avec ça vous allez pouvoir dormir. Et ensuite, on continuera des soins avec des rendez-vous assez rapprochés. Donc là, on va anesthésier. kii docteur damaa ragal piqûre de. non est-ce que ça pas faire pas du tout. Comme, ici on a les doigts dans mais vous verrez par vous-même après vous allez apprécier à la fin. Mm, d'accord. voilà. ouvrez un peu les yeux, ouvrez les mm. yeux. Mm. Voilà. Bien, vous pouvez vous lancer. On a, on a, fini pour aujourd'hui. On va vous donner un prochain rendez-vous. D'accord, monsieur. Ouais. Vraiment, merci. J'ai rien senti, monsieur. Oh, Vraiment. Ouf. Merci beaucoup, c'est gentil. Okay. Là, je peux même rigoler. Machallah. Merci. mais nag franchement xet ma bu ma waa EDI defaral.

16 heures. D'accord. Merci. À vendredi, Inch'Allah. D'accord, monsieur. Vraiment, merci. Je vous en prie. merci. merci. merci. ma ni ma bëri histoire nii bëri xëbër xëbër bëri xadar noonu laa tàppatee mus tey li ma daj sama yóox yi man daa bu man su ma feebaree rek damay dee ndax naar laa tey maa sonal sama seex bi ba fa ba fa gee yóoxu yi fii sama piqûre ba ñu ma tiimalee piqûre bi moom anesthésie ma xam dama noonu dee ndax tàppet i man maa tàppet ñu def sama sama kii bi nii laa tàppatee ndax pour feebar égal dee alhamdulilah bi alamin boobu mooy tey naa nelaw ba fa sonn naa sama bëñ bi xaw na ma rey. ah bañ bañ bañ bi rey na la. ah. dafa dama sama garab ma naan ko. déedéet ma naan ndox. xaaral. xanaa xaar soo bëri lekkee kañ xaar moo toll ruy. nga lekk après après nga soog a naan. trois jours nelaw ma dimbali ma rek. xaaral xaaral ñu la ruy pare xaaral. ok. diggante bu ma génn fii dina defar ruy ay la tëdd nga fi bay lamsal nii baax na dangaa fuy xaw sa bopp jógal jógal ruy baa ngi nii def naa ci tuuti meew bu la neexee nga dolli mi ngi noonu comment def la meew sama bu ndaw bi nga ci def ay ah, da meew baa ngi nii ay da fuy kare la li ngay neexee def lu la neex li ngay fi ñëw sant ma la ko waroo ko ci woon léegi voilà garab baa ngi nii après da ngay da naan benn